wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen gisaa jisaay bi ngeen xam ni lu rëy xew na loolu moo lan mooy bés bi nga xamante ni mooy journée culturelle bi nga xamante ni dañ koy amalal maam Cheikh Issa Diène euh, fii ci Ndakaaru mu war a am nag dimanche euh, le 28 euh, janvier ta ñu amal ko nag ci ndigalal la Serigne Mountakhal Bassir waaye tamit ci kilifteefu Serigne Abdou Latif janna xalifa maam Cheikh Issa Diène ak mboolem ay rakam waaye tamit ay doomam ak hëddiye waaye taalibe yi ak seexi maam Seex Isaa Jeen yi eh, tem bi di jàmm bis bi daal eh, góor jigéen mag ndaw ñi ngi ci woo ñëpp na jaaraamu ma doroyukaay moo man góor man góor moo sellal te moo seen moor moo doy waar moo am xaas jeeg yépp xandeer lañu boot moo am boor am diine rafet melokaan yar say doom am jàmmu sawarte du tooñ raw sa tuur baale xen asamaan daawul tiit sang njàmbaara tax nga laan yow yaa foor sang borom saam ak mam daam def jant yu fekk duniya not ay weer ab xaayaan la yor tabu géej taataan ay waameem fu nekk lay janjab joor bun sàngoy nelaw ma ngay joor ay rakkaam sun booyoo ku ney seral naan yaa ngay woor nee nañ sax dangay defar maam ay wantaay sun booyoo nga jox dëkkandooy suñ mamoor doo boodee te yow xañaan xañaan doo ŋaayoo yaa sottee rafet taxawaay yaa la biir say jagle ma def were yà yaay ngeen ji muridatu yaa man dig leer say jagle waral poroxaan ñéppay naan am nay teen ami taraawut ñi bay noor am jàkkaak juma ja bayriir am ay koori jekkay waasi jëltu xabtuul tepp paspor jeeg dootul jasuy jukki baab xëy jiite biis xel lii la nuy tagg naan féppay loor dun soqeeti kan dang ak xaal dëpp dun soor yow yaa tax na sin ya fay riir ku yey dóor màggal gaa ngi réewi biir baan ñëw nan daaw réew yéppay wari fafal naa Espagne yaa xootin sa gan ko daay def ci baat yaa rekkin sa xeeti takkaay jox ma moor yaa mat ndey yaa du baay yaa mat maam yaa mat waay ma tudd sëriñ maam yaa mat giir say jagle waral batu baa def am réew réew lu na gor gorom leen soo yaa seetal tey li xew boroxaan suñ borom dogal ren ñu def ci lu toll ci cinq millions waaw maanaam daal fii suba maanaam suba ci 6 heures du matin ba 19 heures 20 heures maanaam lépp luy jëm ci wàllu xéewal lañ ko fi séddale mburu mi mat na daanaka 6 6000 pain lañ ko def euh, jus yi mat na 7000 moo xam lay jëm ci mbaxal ak ay michu yeeg lépp dañ ko fi séddale lépp yu mag yoo xamante ne dañ koy rey def ko ay sandwich nga xam ne gan ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy nekk ci alentour bi fii te duñu am fuñu mën a xéwloo ñu di leen ko jox li jëm ci wàllum policiers yi tamit ak sapeur pompier yi ak euh, médecin yi ñëpp ñun ñoo leen di waajalal ay xéewal di leen ko yóbbul ñoom ñi fa demee danañuy lii mën ngeen ko defal ndax ñooñu man maa leen war a yor waaye sama jot léeg-léeg du ma may may mën a yegg ci ñoom mais ñu nag liggéey bi moom faaw dee na nga jaar lu waaye defal mu nangu day rafetlu ko lool ni ñu nag fii moom yéen dong may ngeen baas fi diggante jumaa ak barab bi ahlu liggéeyal Bamba képp lañ may mu baas bi jaaykatu téere yi sax dañ leen fi génne loolu moom wane ne liggéey liggéey bu baax leen sant yàlla bu baax ndax adduna moom ku yàlla defal tawféex dëgg la ba xiirtale si liggéey Sëriñ Tuubaa dëgg am nga tawféex dëgg la ndeysaan ndax ñee adduna fëkk na leen dëgg la ñii ngi jëm ci seen bopp dëgg la te loolu amul solo ndax adduna jaaruwaay rek la maam Thierno Cheikh Ibrahima Faye da daa wax ne mhm. liggéey Sëriñ Tuubaa war na ñëpp te du wàcc kenn. <laughs> war na ñëpp te du wàcc kenn. te liggéey bii amul wàcc wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin rek la. <laughs> Cheikh da ci mujj gi bi mu wéradee. yónnee ci sëriñ bi di sàkku ñaan. sëriñ bi ne ko boo demee ne ko na noppal wàcce naa ko ci liggéey bi dëgg ko dal lépp liggéeyal ma moo ko ne ko boo demee ne ko Mbacke mhm. moo ma njëkk xëy ci liggéeyal Rasulullah te wàcce ko bën a gën kon doo wàcce ndeysaan Mbacke jërëjëf Mbacke maam Thierno saa su ko suñ tubaab ma saa wàcce mhm. loolu koy njëkk yaa ma yaa ma njëkk xëy ci toog te wàcce ko kon wàcce amut lii ngeen di def itam mhm. maa ngi ko doon wax barki démb nii mu leen waree ni la ñu waree addee ñëpp ko war a joxe sëñ bi laa da ko misaaloon ci ne ku ñu jox addiya te doo jox addiya yaa ngi mel ne ku comme waxandewu gaal dëgg la waxandewu gaal nag boo ko yoree ku fóot ay yéeréem ba mu njëkk mu dénk la nga def ci biir nee bu gaar ga fees nag jàpp ne am nga yéere yaa ngay nax sa bopp nee bu ñu demee ba àgg ci bisub daj la mm-hmm. ku ne ne indi sama bu nga yëkkati joxe ba ñëpp jeex neen bu fekkoon ga dugal sa sa neen bu baax da ga am kon góorgóorlu leen ngeen amee tawfeex gën a takku te xam ne ku jiitu ci liggéey Sëriñ Tuubaa raw na la bu faw lépp lu loo koy jéem a yàqal nag xamal ne adduna la a seytaanu ya'idukumul faqra seytaane ah. da lay digal nga nay ñàkk joxe. dëgg la bu bu joxe doon tax a ñàkke kon murid du ñu am dara. te ñoo ñoo borse ci réew mi. te di ko sellal. wallaay di ko sellal sellal gi mooy def ko ngir jëm yàlla def ko ngir jëm Sëñ def ko ngir jëm soxna si. ndax soxna si kat mhm. Sëñ Tuubaa mos nañ koo laaj ne ko. Mhm. li ñu jaaxal mooy. Mhm. Porokhane dañoo gis ni ñi di fa ah. war wali dem. te. deqal gis suñu ma demee woon te ñaar yëpp yem ci yow. dëgg la Mbacke. mooy leen li ko waral. Mm-hmm. deqali. Mm-hmm. Mamadou Abdou ko doon liggéeyal. xaaral nu Cheikh yi suñ bee ko doon liggéeyal. dëgg la soxna soxna daa liggéeyal Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ko. moo tax Sëriñ mm-hmm. doomam ji mu jur. ak li képp ku bokk ci moom. yaa ngi taalibe sukk jëbb la. boo jëfut lam jëfit doo am la mu am. kon nag góorgóorlu leen. jërëjëf Mbacke. mbooloo mi nañ dégloo te àgg suuf te nangu ñaan àgg leen suuf. amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke jërëjëf bil xidma lil muslimin abada war ñaan na liggéey julli ji lii ngeen def ab nasran mu jàggi say doom loolu mes meen ba tey la ñuy fu mu gaynde nar jawoon cay suraat fekk fii waa ahlu liggéeyal Bamba mooy liggéey bi nga xamante ne nii moom la ñuy amal fii waxtu màggal Poroxaan ñëwee ñu di fi amal ay berne yu yaato yaato yaato yaatu yu ñuy amal ngir euh, bernelee ko taalibe Serigne Touba yi nga xamante ne nii ñoo fi ñëw ngir jëmmi soxna Jaara di jóge fenn fépp fépp fépp ci àdduna bi kon nag euh, ñuy santaat euh, bu baax a baax Serigne Touba di santaat Cheikh Mouhamadou Mountakha di santaat di santaat bu baax a baax soxna Jaara mi nga xamante ne nii Euh, lépp lu waaye am ci Serigne Touba yàlla ak moom moo tax mënuñu ko fay moo tax ñuy nap na bi di góorgóorlu ngir di ñëw fii ngir di bégal ak berne ganam yi nga xamante ne nii moo leen tax a jug liggéey bi nag bañ ko door rek léegi yaakaar naa war naa toll actuel euh, actuellement nii ci juróom benn at jàpp juróom-ñaari at septième édition waxtu wu ne bu màggal gi ñëwee ñu ñëw fi indi fi ay berne yu yaatoo yaatu lu jëm ci wàllum ay sandwich ginaar yàpp lu jëm ci ay wàllu mbaxal ay miche defar euh, ay jus defar nañ ci lu mat ay 7000 bouteilles jus euh, sandwich yi dina mat 6000 euh, sandwich ak fruits yi aussi wax dëgg yàlla indi nañ ci lu takk ak ndox lépp ngir bernele ko gan ñi di ñaan day ceeg tawféexi soxna jaara waaye di ñaan aussi day ceeg tawféexi sëriñ Touba Xaadim Rasul ñu di leen sant di leen gërëm di wax ne ñu ngi soog a egsi léegi di wàccee bagage yi nekk ci préparatif yi moo tax xam naa dañuy tënk rek moom. waaw mu mel ne liggéey bi ren wax dëgg yàlla am nañ ci tawféex ndax dafa dañoo dañoo ñëw wàccee bagage yi rek tombeek euh, Cheikh Basirou Mbacké Abdou Khadir porte parole euh, des Mourides jaar fii wax dëgg yàlla gis liggéey bi rafetlu ko lool waaye gën ñoo ñaaxaat ci liggéey bi rafetlu ko lool xam ne fii luñ fi def moom lañ ko defal waaye ñoom lañ ko defal di wax ne ndaw ñu toll ne ñun wax dëgg yàlla suñu borom xeetal ñu ci liggéeyal Serigne Touba loolu tawfeex gënu ko féete kaw loolu yaakaar naa kawe ci ñun lool te yaakaar naa dina gën a yokkaat suñu pasteef ak suñu pas-pas jërëjëf barke borom Touba sakarali mu yasirul asiri maxtaaro li abila masiri ذكر لي ميسر العسير مختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مختاره لي بلا مسير ولا لئين لسواي مدبرا بما علي سهر اليدوم دبرا ما تواجه المكارئ ليا باخ أبا بسكره وهو ليا عنه رديت وهو أن رادي بلا مكاره ولا أمراض رد لخير جهات سيطانا من تيب الممر والأوتانا farali xayri jaatu laynu yasooqo li xayrin almuynu hadiyati min al ilahi wa nabi kulliyati safat wa safatu nabi muy tawfeex ju rëy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 woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le